dal leen ak jàmm mbokki internet yi nga xamante ne bi yéen a ñuy sëfar ci xibaar ginnaaw bi leen nuyoo siyaar leen fële ca euh, Thiès quartier Darou Salaam ku toll ci fanweeri at ginnaaw bi nga xamante ne bi nii amoon na li nga xam mooy tout tànk la daal di jël li nga xam mooy bakkanam ci anam goo xamante ni bu doy waar la ndaxte da ko xooj ba mu wuy ji boromam ginnaaw bi nga xam ne xale bi nag mi ngi toll woon ci ñetti weer la ko def. ginnaaw joojale biñ ko laajee nag euh, enquêteurs yi mi nga xam ne li tax mu jël def jëf jooju ne mooy ki nga xamee ne moom la doon génnal muy ki ko ab xaritam nag moo ko teg euh, ëmb boobale looloo tax moom moom nag mu ne gàcce googu mënu koo continuer di ko yàlle looloo waral nag moom ndaw sile mu jàpp li nga xam mooy xale bi toll ci ñetti weer dal di koy xooj ba mu ñàkk bakkanam euh, lii la nettali li nga xamante mooy enquêteurs yi ginnaaw bi ñu